alhamdulillahi xata yarda wassalaatu wassalaamu ala nibrasil ummati sayidina muhammadin il murtada wa ala alihi dhawi tamkini wa rida wa sahabatihi tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin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 ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nuyoo boobu nag ñu ngi ciy xaasal suñu mbokk yi nekk ci siliri prison ya ñaanal leen xat-xat yi ñu nekk yal na yàlla jeexal ko tàkk ñaanal timit ñi nga xam hôpitaux yi te jàngoro téye leen fa ñoom ñëpp timit yal na yàlla saafara leen. door a dellu siwaat nag ci ki nga xam ne tey moo ñuy jàngal alquran dellu nañ ci daaray démb yi nga xam ne ñoo jur daaraay tey dellu ba ca daaraay suñu maam sëriñ Hadi Touré ca Fass Touré ku tudd alquran sa xel daj ko liggéey bu rëy bu màgg bi ci def bu kenn mënta miimati di liggéey bu rëy bu fés boo xam ne ku déglu dégg ko ku xool gis ko tànn fa benn ndongo mu ñëw war ñoo jàngal ayaat yi ñu war a firi fatiha lay doon waaye nag ki koy jàng sax turandooram la di sëriñ haadi moo ñu koy jàngal bismillah الحمد لله رب العالمين أرى allahu alquran ji rafet na wane na wane na nga fi nga ko jàngee muy daara ju soqeekoo ca Fass Touré suñu maam Serigne Hadi Touré sampoon ko fa di borom xam-xam bu géejuwu ci mbooleem xeetu fànn yi yal na yàlla yokk leeram yokk leeram xalifaam bu tedd bi bàyyeekoo fi ci weer yi passé Serigne Maodo Touré sëriñ Abdul Aziz Touré mi saytu daara ja yàlla dëgëral ko yàlla wàccee barkeem alquran ci yow ak ci say waajur ak tabaarakallaahu sa sëriñ daara bi def xaraf yi ci sa dënn bi li mu doon jàng rekk liñ ciy déggee mooy ne ñi ngi bëgg a dugg ci firéem alquran gannaaw bi ñu waxee démb lenn ci ay njariñ ak ci ay manoore ak ay jaloore yi alquran rango donte léppam kenn mënu koo matal alquran moomu nag firi ko boroom xam-xam yi li ci ëpp dañu wax ni mooy xam-xam bi gën ci xam-xam yi xeeti xam-xam yëpp bi ci ëpp doole mooy firi alquran ndax mbir mu nekk la koy may doole mooy la mu làmboo comme kàddug yàlla moo gën a màgg ci kàddu yi jàng ko gën a màgg ci jaamu yàlla yi firi ko tamit dafay nekk li gën a màgg ci xeeti xam-xam yi waaye firi ko tamit du mais ulama yi dañ ne fardu kifaaya la fardu kifaaya nag buñ ko waxee ci ñi jàng fiq wala ñi jàng usul mooy bépp atte boo xam ne bu ko lenn ca xeet wa taxawee mu wàcc mbooleem xeet wi bu ko ñëpp sàgganee kenn taxaweewut ko xeet wi yëpp bokk am bàkkaar kon lenn ci xeet wi buñ firi alquran rek firi ma wàcc na ñëpp comme mi ngi mel ni ak imaamatu muy ak njiite moo xam boo mën a jiite boo xam ne dafa njiit rek bu fa amee ku fa nekk rek wutuñu ñëpp mi ngi mel ni jihaat ñëpp mënuñoo ànd dem di jihaat yi mais bu amee ñu jihaat rek ñooñu wàccee nañ ko ña ca des kon noonu la firi firim alquran atteem nekkee ci sharia waaye tamit nekk na tamit xam-xam bi gën ci xam-xam yi loolu la boroom xam-xam yi gëm moom alquran nag ki ko njëkk a firi mooy yàlla yàlla am na ci firi moo xam ne jibril la ko firil direct jibril ñëw firil ko sayid sallallahu alayhi am na ci aaya yoo xam ne nag yàlla ak yonantu bi direct jibril amu fa place moo tax yonantu bi léeg-léeg jibril indil ko ay boppi saar mat na ñaar fukki boppi saar ak juróom-ñeent bu ko jibril waxee rek yonantu bi ne ko lu muy tekki mu ne ko xawma ko yonantu bi ne ko man xam naa ko mu ne ko naka laa lay indilee loo xam ne yow mi ma ko indil yaa ko xam te man xawma ko kon loola yàllaa ko ko firil direct jibril amu fa place alif laam miim la bokk alif saat xawaa miim yi kaaf yaa noonu yëpp ca lañ bokk loola yonentoo xam firi ma mais jibril mi ko ko indil xamu ko kon yàlla firi na firi na alquran firil na jibril mu firil yonantu bi firil na yonantu bi direct foo xam ne jibril nekku fa moom nag moo waxal boppam ni mu firi alquran ne summa inna alayna bayaanahu kon yàlla njëkk a firi ñaareel bi tamit ki njëkk a firi alquran ku nekk nit mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ko jibril indil mu indil ko xeet wi kooku tamit daan moom yonentu bi firée ma timit yàllaa ko nettali ci alquran dafa ne wa anzalna ilayka zikra lu tax mu ne li tubayyina linnaasi damaa wàcce ci yow alquran lu tax pour nga war koo firil nit ñi moo tax sëriñ bi waxoon na ko firil na mbooleem saxabaam yi alquran waaye ba mu leen firilee alquran nag dafa am ñu ci dàq firi ndax saa yoo amee ay ndonga jàngal ñëpp ci biir ñi nga jàngal dana am ñu maanaam ñi ko dàq jàng kon ba jàngalee ñëpp nag am firim alquran am na fukk yu ca gën a ràññ firi alquran fukk yooyu aboubacar siddiq moo leen jiite sayiduna omar ca la bokk sayiduna ousmane ca la bokk sayiduna aliyu mi nga xam ne yonantoo waxal boppam ne xam bu doon dëkk maay dëkk ba àlliyu mooy bunt ba ana madinatul ilmi wa àlliyun baabuha ibnu abbas ca la bokk ibnu mas'ud ca la bokk ubay ibnu kaab ca la bokk zayd ibnu saabit ca la bokk abul musa al ashari yu ca la bokk ñii ñooy ñi dax jamono seyduna muhammad ñoom ñi ñëpp nag ki ca dàq firi ñëpp dëppoo ca mooy ibnu abbas imaam Aliou seedeel na ko ko nee na man firéem alquranam ibnu abbas yi yéem na ma ñu ne ko nu mel mu nekk annama yanzuru ilal bi min sitirin raqiqin dafa mel ni alquran dañ ko denk ci bennam néeg am benn rido bu oyof buñ ko protésé moom mu toog ca bunt ba di xool ca rido booba ba gis li nekk ci biir alquran lépp si secret ba loolu nag bu ko mënee waru ñoo yéem la yonentu mosa woo ci saxaba yi mu ñëw toog mu ne ko ŋaal mu ŋa ba mu ŋaxee yonantu bi jàng la muy jàng tafli ko ca gémmañam nga ne yow yàlla yàlla nga ko déggloo taawiloo alquran moo tax téere boo dem buy firi alquran aaya yoo dem bu gaa yi waxee seen dëgg dañ la wax ne la ibnu abbas nii la déggee aaya ja su ñu waxee nii la ko déggee ñaareel nag ñëpp dañuy bàyyi seen dégg ya dellu ci dégg ak ibnu abbas moom kenn tamit moo ci am téere aboubacar ak sayduna omar ak sayduna ousmane nag ñi ma tudd ñëpp li ñuy mën a mën a firi alquran téeréeb firéeb alquran la amu ci mennam ibnu abbas moo ci am téere ñu tuddee ko tanwirul miqyaas min tafsir ibni abbas ñi ci des ñëpp amuñ téere ibnu abbas moomu kon wax naa la ñu dàq firi alquran ci saxaaba yi ñoom ñii bañ ko dàqee firi tamit dañoo jël xam-xam ba jox ko taabiina yi ibnu abbas amoon na ay taalibe yum jàngal firi ibnu mas'ud am na ay taalibe yum jàngal firi sayduna aboubacar am na ay taalibe yum jàngal firi Seydina Seydina Omar am na ay taalibe yum jàngal firi waaye jàngal firi yëpp ñi ca gën a ràññeeku ci firi mooy ñaari taalibe yi taalibe yi ibnu abbas yi ak taalibe yi ibnu mas'ud yi ñoom ñoo gën a siiw ci fireem alquran taalibe yi ibnu abbas yooya doomam ca la bokk mooy abdullah ibnu abbas taalibeem yooya mujahid ca la bokk taalibeem yooya said ibnu jubayr ca la bokk taalibeem yooya ataaw ca la bokk taalibeem yooya maanaam taawus ca la bokk taalibam yooyu Ikrimatu ca la bokk ñii bokkoon nañ ci ñi dàq firi alquran ci taabiina yi boo jëlee taabii ci xam ne na ñooy taalibe yi ibnu Mas'ud ya ca dàq firi bokk Aswad ibnu Yasid ca la bokk Ibrahima Naqa'i ca la bokk Sha'biyu ñii ñooy ñi dàqoon a firi alquran ci taalibe yi ibnu Mas'ud yi ñii nag gannaaw bañ ko firee ñoo ko wàll nag taabii taabiina yi Malik ñëw muy imaamu Malik taabii taabii la imaamu Shafii yu ñëw ku mana a firi alquran la taabii taabii la naka noonu tamit imaam Ahmad ñëw moom tamit taabii taabii la ñooñ tamit ñoo ko dem di ko wàllaat ña nekk seen gannaaw ba mu yegg ci imaamu Suyuti yu muy wàcc di ñëw ba ci imaamu Xasali ci lay ñëw ba ci Seydi ci lay ñëw ba ci Seydi Ahmad Tijani ci lay ñëw ba ci Cheikh Omarul Fouti yu ci lay ñëw ba ci Seydi El Hadji Malick ci lay ñëw ba ci Mawlaay Hadji Abdoulaye Niass bi firi alquran téeméeri yoon fukk ak ñeent mu tolloog li mu saari alquran yi noonu lay wàccee di ñëw ba ci Seex Ahmad Bamba Xaadimu Rasul ca tombam ya ca sew-sewam ya ca alquran manoore yam ci amoon ak jaloore ya noonu lay ñëwee ba ca seeni doom ya ku tudd fireem alquran sa xel daj maam Khalifa Niass sa xel daj Seex al Islaam Haaji Ibrahim sa xel daj ma Sëriñ Abbas Sàlla sa xel daj Sëriñ Haadi Touré sa xel daj Mawlaay Alhaaji Amadou Dem borom diyaa u niiréy ni demeet noonu nga koy toppee ca firima Alaaji Omar Ndaw Daaru Salaam demeet ñooña ñëpp maam amari ngoone ndaak kon noonu la firim alquran wàccee tasaaroo ci suñu réew mi ci kàngaam yu màgg yooyu nga xam ni kenn mënu leen a tudd man nga leen tudd rek ci misaal waaye mënu leen tudd ñoom ñëpp ci gaaw leen buñ ne lu ñuy firi ku tudd lu ñuy firi sa xel daj alquran bu nekkoon olof kon duñ ko firi dañ koy dégg rek bu nekk wàccee mu nekk séeréer duñ ko firil séeréer yi kon dégg nañ ko waaye lim nekk araab a tax mooy laaj nag ñi koy war a firi ci yeneen langue yi même lim nekk arab loolu sax da koy laaj ñi war koo firi arab yi ndax dégg arab taxut a dégg alquran man ngaa nàmp arab ci wàllu nday namp arab ci wàllu baay ñu indi la ay alquran doo xam lu muy firi ndax alquran moom leneen la lu tax yàlla dafa dajale mbooleem xeeti langue arab yi wàccee ci alquran xabaayilu arab yi nag li ñuy bari bari déggante wu am na ki ñoo xam ne tey bu ñu làkkee arab nekk ca Kuufa kii làkk arab nekk ca Basra seen ñaari arab yi duñ déggante kii làkk arab nekk Màkka kii làkk arab nekk Madina ndax fi alquran wàcc fuwaar la muy màkkatul mukarrama fuwaar ñu daan dajee ca Musdalifa ca Minan ca baat ya mbooleem na xeeti langue yooyu yëpp ñu dajale ko mu nekk synthèse ki la alquran wàcc moo tax léeg-léeg mu wax aaya boo xam ne nga dëkk Kuufa ñoo koy dégg léeg-léeg mu wax boo xam ne wala baat boo xam ne nga dëkk Basra ñoo koy dégg loolu sax dana yóbbu ñenn ñu bari bañ dem gis ci alquran ay baat yoo xam ne alquran am na ci baat yoo xam ne du arab imaamu shaafi yu moo ndëkk a taalif ca fànn googa delloo wax yooya ne alquran amul benn baat bu ci nekk bu dul arab baat yi ci nekk yëpp arab la aslan wala mu nekk moo arab waaye baat bu ci nekk te arab amu ci mën nañ cee wax nag baat yu ci nekk nga nekk arab carrément te yow doo ko dégg loolu du jeex moo tax ñi génne ci ay baat lu mel ni baatab ujaab ñu ne du ñu jël ni baatab kubaar ñu ne du arab lu mel ni baatab xaswaratu ñu ne du arab lu mel ni baatab istabraqin ñu ne du arab lu mel sin ñu ne du arab bañ ko waxee imaamu saafi moo taalif téere delloo ñoo ngeen ne loolu njuumte la mboolem lu ne ci alquran lépp arab la même boo dee boo ko déggu tamit arab la moo ndi misaal ne yonentu toog na benn góor gu màgget ñëw bëgg a toog yonentu bi ne ko jugal mu ne ko ah yow yonentu dama lay xamal ne ana rajulun kubaar dafa ne ko yab na xaswara ana rajulun kubaar inna hadha la shay'un ujaab ña ko wër ñëpp ci yonent bi nàmp arab ci wàllu ndey ak ci baay dégguñu ko ñi laaj yonent bi ne ko kii lim làkk est mu ne leen xaswaratu mooy tekki gaynde dafa ma bëgg wax ne yab na xaswara yow doomi gaynde gi ana rajulun kubaar man mag mu màgget la nga bëgg maa jugloo nii aadana ah, métti inna hadha la shay'un ujaab mbir mu kéemaanu la kon nekk arab taxut a dégg alquran man ngaa dégg arab te doo ko dégg moo tax saxaaba yi li ñuy am am xam-xam am na ci ñoo xam ne indi nañ leen ay baat ci alquran mënuñ koo firi Seydina Omar ca la bokk toog nañu ñëw laaj ko ne ko waaw li yàlla namm ci wa faakihatan wa aban mu ne man duma wax ci téeréb yàlla bi lu ma xamut su taaw ak ban asamaan may tiim kon ñaari baat yi Omar mënu ko woon ku mel ni saaxibu nu arab pire la di saxaabi yu bari xam mu ne li may négg dékk arab ñetti baat ci alquran mënu ma ko firi ñu ne ko ban mu ne baatab raqim xaw ma lu muy firi baatab mataaw xaw ma lu muy firi baatab tabaraka xaw ma lu muy firi mu wër ci giiri araab yi fu ne mu dem di ko seeti waaye léegi-léegi da ngay wër di seeti dara fekk li ngay seeti mi ngi lay seeti ngeen far daje mu dem ci benn kabilatu arab gu màgget di wax doomam ja ne ko ayna raqim mun a jaa a raqim fa axada al wata wa tabaarakal jabala mu dëppaat ne ñetti baat yi ma doon wut yëpp kay ñëw na fii mu ne ko ay na raqib ndeke raqib day tekk xaj mu ne ko xaj bi ñëw na jël bagage yi yéeg yéeg ci kaw kaw kaw doj ba tabaaraka mooy maanaam kawe na ca kaw doj ba suñ mag ñi nag ñoom kenn gënu leen déggal Alxuraan lu ñu ko firee kawe na ñoom dañuy wax ne tabaaraka bëri na wiiw ñoom lañ leen ko fiire kon dégg arab taxut a dégg Alxuraan Alxuraan te buñ ne arab la arab yëpp déggante wuñ comme ni nga xamee ne olof yëpp déggante wuñ olof li muy ñàkk ñàkk sakkan olof ba ngay làkk saalum boo ko waxee jolof duñ la dégg ba ngay làkk jolof boo ko waxee eh, maanaam kajoor duñ la dégg ba ngay làkk bawal boo ko yóbboo saalum duñ la dégg te pourtant yëpp olof la waaye kenn ku ne loo màgget màgget ci olof dañ la ci wax baat boo xam ne mosoo koo dégg te olof la noonu la arab mel timit naka noonu timit noonu la amee ci séeréer séeréer yi bari na ci xeet yoo xam ne déggante wuñu saafeen séeréer yi nduttu ak yeneen xeet ya am na ci ñoo xam ne bu ñu làngee duñ déggante te lépp séeréer la noonu la amee tamit ci tukulóor noonu la amee ci anglais am na baat yoo xam ne déggante wuñ ca noonu la amee ci français ak ci lépp rawatina nag arab mi nga xam ne moom moo gën a sakkan ci xeeti làng yooyu yëpp sakkanaay gi yàgg naa ko nettali ci conférence yi sakkanaayu arab moo tax langue arab moo tax langue alquran alquran wàcc ci langue arab arab yi olof yi ci des yëpp langue yi ci des yëpp sakkanuñ arab rek a sakkan lim sakkana tax bu nit ki dee bañ dugg langue wu ma mën a dégg buñ koy laaj ci biir bàmmeelem arab lañ koy làkk lim sakkana tax buñ duggee aljana langue yi doon langue yëpp dañ koy bàyyi di làkk-làkku arab yonentu bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam sakkanaayu arab yaa ngi koy déggee ci génn góoru siise siise yóbbu woon doomam keer mu dem jàngi ñib si jamonoy nawet ba mu ñib nag a baa ji ne ko doom heure bi nga ñib si baaxul de ndax dafay laaj nga war a jël e, jumtukaay yi dem ca tool ya te xam nga ustaas yi ñemewuñ tàng nekk ca tool ya ñiy bay di bay ba une heure passé benn arab romb leen lakk ko ne ko kay fa xaaluka mu woo doom ji ne ko ah arab de bëggoon naa koo dégg lool waa ji nag li ma wax ne kay fa xaaluka mbaa saaguwul ñu li muy tekki mu ne ko tekki lu dul bàyyi yaa soxor yaa néeg yaa réere ak njureel yaa ma jàng loo ji woon jàng naa xam naa diplôme yëpp am naa ko sama rakk yeeg sama rakk rakkaat yëpp am nañ am nañ soxna am nañ doom am nañ métier mu nga di ma bayloo ba une jot ci tënk bu gàtt li wàcc jot ñi war a jo wàcc daal lii mooy kay fa xaalu aa ah bàyyi ja yëngal booba ba ci kanam ne ko ah doom arab sakkan na di kay fa xaalu nga wax lii lépp arab moom moo sakkan wala yow yaa mën a sakkanal fekk wax na dëgg araba sakkan kay faxaalu ko mooy luy sa mbir mbiram ñàkk jabarang ci ñàkk doomang ci ñàkk métier mu nekkul mbay a ngi ci comme une jot na bëgg na bàyyi de wàccee ko tamit lépp ci kay faxaalu ko la nekk kon al langu wu sakkan woowu ci la alquran wàcc ku ne koy firi rek da ngay wax lang ca xam lu ca bëree bëri tamit réer la ca ndax alquran dafa dagale mbooleem xeeti fànn yi yow boo koy firi yàlla may la nga def taxassus ci wàllu fiq soo ñëwee ci fiq ba dana mën a leer naññi waaye boo amul yenn diplôme ci wàllu médecine doo ko mën a leeral boo ñëwee tamit man ko ci médecine te mënoo ko ci fiq mënoo ko ci luxa mënoo ko ci balaaxa mënoo ko ci yeneen ya su boobaa tamit du sotti tax kon dangay ngay boole jumtukaay yëpp door a mën a firi alquran dëgg bu ko moyu nag dafa am loo cay mën a firi la ca des rek nga bay jàpp naa ne ku mën a dar képp fànn yëpp nag yombul ki ji jamono waaye lu ca mën a am rek alquran moom ci làkku arab la wàcc baat yëpp arab la donte am nañu jàpp ne am na baat bi ci nekkul arab alquran na ko wax yàlla ne baat yi arab la ne inna anzalnaahu quranan arabiyan kooku alquran la wax waxaat wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruuxul amin ala qalbika lum ca teg bi lisaanin arabiyin mubinin waxaat ne wa kazalika anzalnaahu xukuman wa kazalika awxaynaa ilayka quranan arabiyan kon fii yëpp arabiyan rek lay wax kon day tekki ne alquran léppam arab la bu ca nekkul arab aslan tamit nekk na mu arab léppam jeex noonu la ko yàlla defee ba mu jeex mu nekk langue woo xam ne moo gën a moo gën a sakkan ci xeeti langue yëpp alquran moomu nag bi ci jiitu boo ubbee kaamil bi rek looy njëkk a jot fatihatul kitaab benn saar la bu bari ay tur turam yi rek boo ko doon calculer ëpp na fu turam ya bokk na ca kaafiyatu ndax day fegal ku koy jàng musibam adduna ak mu àllaaxira bokk na ca turam ya waafiyatu ku koy jàng dana la matalal bépp xiwu adduna ak bu àllaaxira bokk na ca turam ya waaqiyatu day protéger lépp loo ragal ci xeeti ay sa diggante ak moom ci adduna ak àllaaxira dañ ko tuddee asaas ndax moom lañ fondation ak xaras kursi asamaan dañ ko tuddee kënsu dañ ko tuddee salaatu ndax euh, julli mënta wér ci ah, bu fekkee yaay jiite foog nga jàng fatiha su fekkee yow kenn nay jiite faaw nga jàng fatiha su fekkee dañ laa jiite nag yonentu bi wax na ci beneen hadis ne xawlul imaami xawlukum mu watta mu indi hadis boobu am dañ koy tuddee raqiyatu muy saar wi mocci ndax lépp lu nit moccee ci fatiha mu wér yenoon bee ko wax dañ koy tuddee shifaa day saafara mboolem xeeti jàngoro yi ba mooy dee dañ koy tud dañ koy tuddee umul kitaab danañ koy tuddee tamit maanaam euh, dañ koy tuddee maanaam umul kitaab di ko tuddee tamit waaye turam yooyu yëpp bu ci seen ko maanaam umul kitaab téere bi yëpp di alquran dañ koo côté ci fatiha te danaa ci ñëw moo tax boo jàngee fatiha jàng nga alquran yëpp boo ko firee firi nga alquran lépp moo tax julli mënta wértul duhut moom tuddee nañ ko saboxul masaani mooy juróom-ñaari aaya yu ñu ñaaral ci wàcc ñii ne mooy juróom-ñaari aaya yu ñu ñaaral ci jàng fatiha juróom-ñaari aaya la waaye juróom-ñaari aaya yi nekk ci fatiha yëpp dañ koo ñaaral li ëpp ci ay baatam dañ koo takkaraar boo commencé loo wax rahmaani rahim muy benn wax nga rahmaani rahim de nga demaat soriwul dara nga ne alhamdulilahi rabbil alamin waxaat nga arrahmaani rahim nga demaat ne maliki yawmi diini iyaaka balaa yàgg rek nga ne wa nga ne nga ne iyyaka na'budu balaa yàgg nga ne wa iyyaka nasta'inu kon iyyaka ñëw na ñaari yoon nga ne ihdina siratal mustaqim balaa yàgg nga ne siratal ladina kon a ñëw na ñaari yoon ba nga waxee loolu an an'amta alayhim wa yaa wax alayhim mais balaa saar wee jeex rek da nga waxaat alayhim nga ne xayril maxdubi alayhim kon alayhim yoon sirata ñëw na ñaari yoon iyyaka ñëw na ñaari yoon arrahmaani ñëw na ñaari yoon looloo waral ñenn ci mufassiriin yi ne kon mooy juróom-ñaari aaya yu ñu ñaaral ci njàngin ndax lépp ci ay baatam dañ ko takkaraar ñii ne mooy juróom-ñaari aaya yu ñu ñaaral ci wàcc fatiha wàcc na makka fatiha wàcc na madinatul wara ndax wérut ci benn téere ne yonentu mos naa julli ci lu duhut fatiha te sax na ci siira na yonentu bi sax na makka fukki at ak ñett di julli kon foofa ba daan julli daana jàng fatiha amaaw tafsir yëpp ne yonentu ba demee madina fatihatul kitab wàcc na fa kon wenn saar la wàcc ñaari yoon wàcc na bañ farataalee julli bees ca màkka wàccaat timit ca ba ba mu rañaanee ba mu ba mu gàddaayaay kon dem a munawara kon loolu mooy fatiha fatiha mii wax naa la ne yàlla da cee côté alquran lépp boo ko seetee nga setantal ko benn baat bu ne ci fatiha dafa am aaya bu mu tolloog ci alquran booy jàng fatiha loo njëkk a wax bisimillahi moo ci njëkk ma ngay junji bisimilahi mu jireeha wa murseeha loo ca teg ar rahmaani rahmaani jooja ma ngay junji xulu don laa wa don rahmaana boo loo ca teg ar rahimi ar rahimi ma ngay junji ma ngay junji aaya jële maanaam innahu min sulaymaana wa innahu bisimilahi rahmaani rahim mu jeex bisimilahi jeex basmala bo paree loo ca teg alhamdulilahi alhamdulilahi mooy nañ sant yàlla sant yàlla ñaar la benn ngi defee ko ci ndabal place mbaa ngi defee ko ci ndabal jamono yàlla indi na ñaar yépp nag laa lahul hamdu fil ula wal axirati kooku mooy ndabal maanaam jamono nañ sant yàlla ci àdduna nañ sant yàlla ci àllaaxira waaye tamit wa lahul hamdu fi samawaati wal ardi kon kooka mooy ndabal place nañ ko sant ci asamaan waaye waa suuf tamit waa waa suuf tamit nañ ko sant ci suuf kon loolu mooy alhamdulilah mooy ne kon nañuy sant yàlla ñu nekk asamaan nañ ci ne ñu nekk suuf nañ ci ne ñu nekk àdduna nañ ci ne ñu nekk àllaaxira nañ ci boo loo ca teg rabbil alamin rabbil alamina ma ngay junji aaya jële wa ma rabbul alamina qaala rabbu samawati wal ard loo ca teg rabbil alamin arrahmani arrahmani ma ngay junji maanaam arrahmanu ala arshi stawa ca suratu taaha ak arrahmanu allama alquran si suratu rahman loo ca teg tamit maanaam arrahmani rahim maliki yawmi diini maliki yawmi diini yawmi diini mooy lan kooku suratu infitaar moo koy leeral wa ma adraka ma yow mu diini yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an boo ca bàyyee ko loo ca teg maliki yow mi diini nga ne iyyaka na'budu kooka dafay junji yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakum jaamu leen seen borom te wéetal ko wa iyyaka fa in tawalaw fa qul hasbiyallahu suratu tawba boo fa léegi nag iyyaka na wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim kooka dafay junji wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim kooka dafay junji min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihin wa xasuna ulaayika rafiqan lu ca tegu maanaam xayril maxduubi alayhim wala daalin kooka ba mu ne xayril maxduubi rek ma ngay junji wa baa'u bi xadabin ala xadabin ba mu ne maanaam wala daalina ma ngay junji maanaam wala tabiu ahwaa qawmin qad dallu min kon lii mooy code yi alquran génne ci ci juróom-ñaari aay boo ko seetee tamit alquran moomu juróom-ñaari aaya juróom juróomi turi yàlla ci ne am na allahu yaa wax ne alhamdulillah nga teg ca tamit rabbi ne rabbil alamina wax ne rahmaani arrahmaani nga wax ne rahimi wax tamit ne maliki yawmi diini kon juróom-ñaari turi yàlla moo nekk ci fatiha allahu rabbu arrahmaanu rahimu juróomi tur yi moo ci ne juróomi tur yi tamit dafay junj juróomi ponk lislaam yi nekk ci charia tudd baatu seede bi julli julli juróom or weeru koor joxe asaka aj makka baat bu ne ak ponkab lislaamam baat bu njëkk bi nga xam ne mooy alhamdulilah alhamdulilah li muy jàngale yëpp mooy la man na laa ilaha illa allah moo tax kon ashadu an laa ilaha illa allah rek ba ne alhamdulilah dugal nga ko moo tax yonent bi ne ko wax alhamdulilah ñi bindal la fanweer ci yool ku wax laa ilaha illallah ñu bind la ñaar fukk ci yool ne ko lu tax mu ne ko wax laa ilaha illallah ngaa wéetal yàlla waaye santoo ko ngaa boole wetal yàlla ak sant ko kon fanweeri yool ngay xam kon fax la mën na hu laa ilaha illallah moo taxaw taxawaayu alhamdulillah ba nga ne rabbil alamin rabbi mooy tekki kii defar ki yéwénal kii yar kii baaxal sa xel daj da julli julli lay baaxal nit ki ndax boo jullee na yàlla bëggee dana dem ba julli gi dox sa digganteeg lépp lu bon dootoo fen doo sàcc doo njaalo doo lekk xal li jàmbur alquran a ko wax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kon rabbil alamin mooy asalaatu boo ne arrahmaani kooka mooy wor weeru koor xoor gi ñii xiif ak bàyyi lekk yokkut yàlla dara jëriñut yàlla dara waaye ñun lay jariñ dafa bëgg ñu mos kiif mos mar ba bu ëllëgee bu nit taxawee sa kanam ne la kër ga dara bàyyi wuma ko fa taaluma ndogu taaluma ñetti fan maanaam ciin sama kër lu sa xol dëgër dëgër da nga am làmb sa poos jox ko même booy lebi. loolu nag lu tax ngay làmbu sa poos do jox ko da ngaa mosoon xiif gis ni mu méttee mosoon mar gis ni mu méttee nga ne am ah, mosoon naa ko ci weeru kor fanweeri fan. kon kii li ko dal mos na maa dal bàyyil ma làmbu sama poos dimbali ko te yàlla tax waaye am na ñoo xam ne bu fekkoon ne weeru dana xiif ñu ne du dëgg nga ne leen nit dana mar ñu ne du dëgg. yàlla nag mu jël ko maasale ko ci ñi am ak ñi amut bëgg ñi ñàkk bu ñu la diisee soxla yow mi am nga mën a làmb sa poos dimbali leen mooy arrahman kon arrahmaanu moo tolloo kutiba alaykum siyaamu kama kutiba alladina min qablikum laallakum tattaqun arrahim moo taxaw taxawaayu asaka asaka lu dara lu dul yàlla dalaa may ñaari xéewal yu jafe may na la nga fekkee may la nga fekkeele xam nga koo gis mu ne maa ngi génne asaka moom ci boppam fekkee na ñaareel ba tamit fekkeele na ndax boo fi fekkee woon te fekkeele doo génne asaka boo boo fi fekkeele woon te yow fekkee woo tamit doo génne asaka kon yàlla mi la may xéewal ak fekkee may la xéewal ak fekkee le nga nga nekk fekk sa mbokkam jullit moo xam ne fekkee na mais fekkee le hut ma amul sax dundam ñaari fan waxuma la ñett yow nga am dundam ren ba déwén ba denc ko ren ba déwén yàlla ne la nag somp si dara ngir ak yërmande nga mën koo séddoo ki nga xam ne dafa néew doole kooku kon arrahimi moo tolloo xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bihaa boo ne maliki yow mi diine nag dafa niroog lool bis penci buñ ne aj màkka fo jeefa di wuy si benn borom di wër génn kaaba ñoom ñëpp bokk làmbaayu ñi teraxlaayu yére ya weex loolu niroo nag lool bu nit ñi dekkee téye seen téere jëm bis penc jëm ci benn borom pour mu war leen a moo tax maliki yawmi diini mooy walillaahi ala naasi hajjul bayti man istataa ilay sabilan kon juróomi juróomi tur yàlla ci ne juróomi tur bu nekk ak ponka boppam boo ko jëlee tamit juróomi tur yàlla ci ne ruuxul bayaan ay wax bi ci njëkk mu ne alhamdulillah lillaahi ji li muy tekki mooy yàlla dafa ne maa la bind yow nit ki kon man maay man maay yàlla xalaxtuka fa idan ana allah ndi rek moo mën a nekk yàlla mu ne bi ma la bindee tamit maa la yar ci ay xéewal suma rabbaytuka bi niam ma ray la ci ma yar la ci ay xéewal kon man maay rabbil alamin lu ca tegu mu ne arrahmaani mu ne bi ma la yaree ci ay xéewal nga may mooy rek di dëgër loo samay xéewal ma suturaal la kon man may arrahmaan ku nga continuer tamit tuub sa bàkkaar bari nga tuub jëm ci man ma jéggal la kon man maay arrahim bu ëllëgee da nga dee taxaw sama kanam ma fay la sa jëf maay malik yow mi diini kon ma juróomi tur yooya ñaari version yu la ci borom xam-xam yi wax waaye boo ko seetee ci gën a jege ci suñ jamono nga bëgg koo firi ci jamono rek da ngay wax ne yàlla daal mooy suñ kilifa mooy suñu njaatige mooy suñu borom nekk boroom boo xam ne bu baax bu bëri yërmande mu ne comme may seen nag kilifa dama bëgg yéen ñëpp ngeen xëy di ma sant sant leen ma xanaa lu nit nag yaafus yaafus war a mën a sant baayam mi ko tabaxal kër gi mu dëkk fi di ko jox añ ak reer ak ndékki bu feebaree mu faj ko war nga mën a sant sa baay nag ki lay def yàlla ne man maa la koy defal ñëwal ngeen sant ma ne man kat kon ma mooy alhamdulillah ñu ne ko lu tax ñu war leen la ñu war laa sant mu ne damaa bëri njaboot ku bari njaboot laa ndax maay rabbil alamina am naa njaboot ci nit ñi ci jinne yi ci malaaka yi ci mala yi ci ci lépp ñu ne ko ndax ni nga bëree njaboot ma manee nga ko njaboot léeg-léeg ki man bëri njaboot mënul njaboot yàlla ne xakkay ni ma bëree njaboot laa man njaboot ndax sama njaboot gi li ñu bëri bëri kenn xiifut mooy arrahman ñëpp lay xéewal sama njaboot gi li ñuy bari bari ku dem tool danga nga añ ndax rahman laa foofa rahman la fa ñëpp ñu dem tool ak ñëpp ibrahima sax bëggoon na ko ne yow yàlla da ngaa bëri njaboot te nga jël sa xéewal gi jox ko ñuy dem tool rek mu ne déedéet waman kafara qaala waman kafara waman kafara fa umatiuhu qalilan suma atturu ila azabi naar su ko defee tim mu ne kon ku dem tool ak ku demul tool yëpp dinaa la jox xéwal maay raxmaan waaye nag maa ngi leen di yëgal ne am naa yàq bu ma denc ëllëg boo xam ne ña ma demal tool laa koy jox mooy arahim kañ nga leen koy jox muy bisab maliki yow mi diini yow yàlla sa tool yi nga bëgg ñuy dem mooy lan mu ne tool ba du dara mu kana saaynu rek jaamu rek laa bëgg mooy samay tool ñu ne ko waaw ñaata njaboot nga am ci tool yi nga sant leen pour ñu liggéey mu ne ñetti njaboot laa ci am njaboot goo xam ne dañuy defar tool dañoo yem ci loxo ñooña mooy ihdina siraatal mustaqima siraatal ladina anamta alayhim am njaboot goo xam ne dañoo xëpp loxo kooku mooy xayril maxdubi am njaboot goo xam ne dañoo xees loxo mooy wala daalina amina ñetti njaboot na ku dem sa kër ñaareel da fekk ñetti njaboot yi njaboot gu baax maneeg baayam lool am njaboot gu mane deeg baayam lool am njaboot goo xam ne yoonu baayam ni benn yoon waxatut ci moom dara kon yàlla tamit ñetti njaboot yi la boole am kon loolu mooy maanaam fatihatul kitab ci ngëneel yu yi nga xam ne làmboo na ko te liñ ci réere moo ëpp téeméeri junne yoon liñ ci wax waaye fatiha mi boo ko seetee juróom-ñaari aaya la juróom-ñaari aaya yi ci nekk dafay remplacer juróom-ñaari njëg gi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yam gisoon ci abi jëhlin ba yàlla ne ko wala qad min al mathani kon juróom-ñaari aay yi ma jox la moo gën juróom-ñaari njëg yi abi lahab yële kon li muy tekki rek ku yàlla jox alquran nga bàyyee koo fi di ñeexati kenn ngir ci wërsëg su boobaa tuutil nga lu yàlla rëyal rëyal nga lu yàlla tuutil alquran ku ko xas am loo néew néew wërsëg waroo ñee kenn yàlla defal na la li gën xéewal gu dul jeexati ay am na ñoo xam ne tey ma yàlla may la alquran nga man ko mbaa nga man ca di ko jëfee bu la ni rombee oto bu rafet nga ñee ko xam nga gën fuuf ab kër gu baax nga ñee ko ku ko yàlla xas jox ci ngëneel desalatul la dara moo tax yonent bi yàlla ne ko bul jël sa bët yi di ko tàllal jëmee ko ci njëg njëggam mële mu ñàkk solo muy jeex mi jox naa la juróom-ñaari aaya yuy remplacé juróom-ñaari njëg yooya wala qad aataynaka sab'an min al-mathani kon juróom-ñaari aaya la yuy remplacé juróom-ñaari njëgg waaye juróom-ñaari aaya la yoo xam ne tamit dafa làmboo mbooleem alquran li ci nekk lépp ndax dafa taxaw taxawaay juróom-ñaari njàngeenu alquran yi juróom-ñaari aaya la yu taxaw juróom-ñaari njàngeen juróom-ñaari aaya la yu taxaw juróom-ñaari xarafi alquran yonentu nee na alquran juróom-ñaari xaraf la kon juróom-ñaari aaya yi tamit remplacé na maanaam juróom-ñaari xaraf yooya noona yëpp nekk ci alquran juróom-ñaari aaya yi tamit boo ko seetee ba seetantal ko juróom-ñaari xaraf amu ci fatiha li muy rëy rëy doo ci fekk xarafu saa ci ñetti tomb ya lu tax ku tudd saa sa xel daj sa buur muy alkande kon ku jàng faate mu ngi ci alkande fatiha li muy rëy rëy doo ci fekk faa baata faa amu ci fatiha tur wi de xam na faa waaye biir saar wi ba mu jeex doo ci fekk faa ndax ku tudd faa faa un sa xel daj firaaku ji firi teqali ko kon alquran fatiha day taqale waaye du teqale ku jàng fatiha fatiha li muy rëy rëy amul baata maanaam raa ku tudd raa un sa xel daj xulmatu ji firi lëndëm moo tax ku nekk ci alquran ku jàng fatiha di ko jëfee yàlla leeral sa adduna leeral sa bàmme leeral sax àllaaxira doo dugg ci lëndëm waaye boo seetee alquran fatiha li muy rëy rëy amut jiim baatab jiim amu ci ku tudd jiim sa xel jat maanaam mooy safara kon kuy jàng fatiha rek yàlla mën na laa musal da nga mucc maanaam maanaam timit maanaam ci safara boo seetee fatiha amul zaayun racine guñ tomb amu ci ku ko tudd sa xel daj zaqum mooy garab googa sax ca digg safara boo leggee waa safara di ci lekk kon fatiha amut faun amut maanaam thaun amut zayun amut maanaam raun amut timit saun sin lu tooy sin su tooy kooku mooy saqaawatu muy ak texeex di kon ku jàng fatiha danga mu mukki ci texeex bi moo tax fatiha juróom-ñaari aaya la mu bunti safara ya bu fatiha aaya boo jàng mu tëgale buntu ki safara yaa ko jàng la ab abwaab li kulli baabin minhum juz'un maqsuum kon juróom-ñaari aaya yëpp benn bu nekk dafa taxaw aaya bu lay tëgal buntu ki safara sa buntu yëpp bu tëgoo ki safara fooy duggee safara kon kay dafay tëju rek bu ko defee bunti bunti xaal jaana yi daal di tijjeeku ki sa kanam kon fatiha ngoo lim làmboo ci ngëneel yàlla na ko yàlla sotti suñ kaw fatiha moom nag boo koy firi mala moo ci jiitu basmala fukki xaraf fukki xaraf ak juróom-ñeent yi moo tolloog fukki bëgg bëkki néegi safara yaak juróom-ñeent alayha tisaata achar loolu la alquran wax fukk bëkki néegi safara ya fukk ak juróom-ñeent lañ kon boo jàngee basmala rek moom kenn mu musal la ki juróom-ñetti juróom maanaam fukki bëkki néegi safara yaak juróom-ñeent kon fooy demee safara loolu nu ma Mas'ud wax moo ko wax jëlee ko ci yonantu bi sallallahu alayhi wa boo ko seetee tamit Euh, nga jël ba nga jël basmala ñetti turu yàllaa ci ne allahu mi ngi ci arrahman arrahim nga ne bisimillahi rahmani rahim ñetti turu yàlla yooyu benn bu ci nekk dafa taxaw taxawaayu ñetti junney tur ndax yàlla ñetti junney tur la am junne bu njëkk bi malaaka yi rek ñoo ko xam junneem ñaareel bi euh, yonantu rek ñoo ko xam ñetteelu junne bi mu jël ñetti téeméer dugal ko ci tabo sabuur bi ñetti téeméer mu dugal ko ci tawreet ñetti téeméer mu dugal ko injil beneen téeméer bi mu dugal ko ci maanaam Euh, alquran yow nag boo ne bismillahi rahmaani rahim sa ñetti tur yooya yàlla dafa na cey bindal ku sikkar ñetti juney tur yee benn desatul ca kon am na doole boroom xam-xam yi na ñëw firee ko na yonentu yàlla Iisaa firee woon ci sëriñ daaraam ba ba mu koy jàngal baa teg aliwa ga ca lupp ja ne ko baa ne siin mu ne ko baa leeragut kay mënu ñoo hegg ci siin di waxuma la miim lu baa di tekki sëñ daara ba gag ne ko xaw ma ko mu ne ko mu ne ko alba mooy tekki bahaullaay mooy taarab yàlla mu ne ko siin mooy tekki sanaullaay kaweeg yàlla mu ne ko miim mooy tekki majdullaahi wa mulko mooy tedd ak yàlla ak nguuram ga noonu la ko ko firilee ba mu jeex ko ba sëñ daara ba commencé waaye tamit awliyaawu yi dañu wax ne boo jëlee basmala xaraf wu nekk di fukki xaraf ak juróom-ñeent dafa am turu yàlla wu muy junji baa moo ci njëkk mi ngi junji turu yàlla baaqin al baaqi ca turu yàlla bokk al barru ci tur yàlla bokk boo jëlee siin dafay junj tur yàlla ak samiu ak salaamu boo jëlee maanaam miim dafay dafay junj maan tur yàlla maanaam al maliku ak majidu bu ko defee nga jël allahu alif gi dafay junj maanaam allahu laam gi junj latifu haadi raagi gi junj maanaam waxoon nga alif wax nga ko fële kon da ngay jël raam maanaam noonu lañ ko jëlee ñoom firee ko ko moom ba turi yàlla yi jeex moo tax boo waxee bisimilah rahmaani rahim rek sikkar nga tudd tudd nga turi yàlla yëpp ca turam ya moo tax ñeen ni nga ci seen sikkar yëpp seen seen dog yi ca sikkar mooy basmala basmala amul lu man a jox amul lu mënta joxe mën na laa jox xéewal yoo bëgg am mën na laa musal timit ci mboolem xeeti musiba yi kon basmala mooy lépp ku ko am daal ñàkkoo dara ci lépp moom basmala nag li muy gàtt gàtt lu bari nga neel la lu mënut amut mën naa saafara bépp jàngoro buur bale nekkoon ruum ñu koy tuddee Qaysar muy buur rome yi dafa amee woon bopp bu koy metti médecin bu nekk dem na fa bopp bi métti rek mu mujj la muy nekk nekk ab yéeféer mu bindoo Omar ibnul Xataab leetar nekko ko sama bopp bi daal jaaxal na ma ba jaaxal sama médecin yi mënuñ koo faj ma lay laaj bi ndax mënu leen maa dimbali ki lu ko faj Omar ibnul bindal ko ab téere bismillahi rahmaan wax bisimilahi rahmaani rahim rek ndax duul rek ba mu ko ca bindee leem ko ba mu tuuti mu ne ko na nga ko takk ci sa mbaxana mi comme lim nekk duwul jullit moo tax ñu koy takk ci mbaxana ndax loobaa sobe du ca gaaw a yegg waaye ku doo ko takkal téeréb alquran ndax mu koy takk ci ndiggam ak yeneen yi mu koy sangoo mën na ko def ci place sobe yi muy indi problème te boobaa yow mi ko bind yaayam bàkkaar ba waaye comme mbaxana la moom foofa boo demee xalil nee na la mbaxanaam ku dul jullit sax boo dajeg mën koo sol jullee ko waaye ku dul jullit mënoo sol tubayam ja di ko jullee ndax du teet sobe mënoo sol mbubbam ma di ko jullee waaye mbaxanaa ma mën nga koo sol Omar bindal ko ko moom daal bu solee mbaxana mi rek bopp bi sedd guy bu te bu sumee mbaxana mi bopp ba metti nit ñi nag bañ kumpa di vérifier di xool di xool ba lemmi téere ba ndeke bañ ko xoolee bismillah rahmaan la ci Omar bind moo tax kon téere weddi téere neexut a weddi de Omar a njëkk a bind téere boo bëggee weddi téere da ngay laaj téere ba ci luñ koy bind téere bépp boo xam ne dañ koo bind ci alquran wala ñi bind ko ci waxi yonantu bi wala ñi bind ko ci ñaani yonantu bi ak yu mel noona duñ tere benn jullit takk ko ndax duñ tere ab jullit takk ab téeréem mbaa duñ ko tere muy takk ñaanu ab jox sarta ne ko ñoŋeel ko fexeel boobu ko moom dëggu ci sobe ab jullit bu takku téeréem lu muy takk bu sangoowut ab téeréem mbaa mu naan ko lu muy lu mu koy def wanu nasilu min alqurani maa huwa shifaun shifaawu ga nag nakira la kenn ku ne ak nam lay saafara woo man nga koo saafara wu ci jàng jëfee ko mën na laa wu ci naan ci jàngoro mën nga koo wu ci takk kon ki njëkk a bind téere yónnee ko koo xam ne du julit mooy Omar ibnu Xataab te lii mi ngi fees tepp ci téere yi kenn mënu koo weddi waxuma la nit sax waaye géej sax Omar bindal na ko téere niilu misra gii daana am na weer woo xam ne bu ca xeggee day taxaw te xam nga géej bu taxawee lépp taxaw bu taxawee bato yi taxaw féeri yi taxaw gaal yi taxaw jën dootul amati or jama dara dootul amati ñooña euh, jaraaf jam fa nekkoon bind leetar wax ko Omar te booba bu musaana taxaw li koy tax daw rek jànq bi gën a rafet ci dëkk bi lañ koy lañ koy jox yoolee ko ko bañ ko bindee Omar Omar ne bàyyil ma bindal ko téere bind ab leetar def ci lañ fa def wax ko ne ko bind sànni ko ko boo ko sànni xamal ko ne ko yow géej gi lam ca def ko bu leetar bokk na ci yow géej gi su fekkee yaa taxawal sa bopp bul dawati su fekkee yàlla la tax ba bis ni ke tey géej ga taxawatut kon nag bu géej soxlaa téere nit kenn ko ko soxla kon nag Omar bindal na nit téere de jërul weddi de te loolu mi ngi ci téere yi su ko defee tamit boo ne ñaan fatiha day ñaan man nga koo ñëw waxuma la nga takk ko téere mais man nga ko koo ñaanee yonentu bi yónni na benn ñàngal ñi dem ci benn xare romb benn buur dag ya wër ko ñu ñaan ñooña ñam ñi bañ bañ wanee gannaaw rek buur ba ci boppam jaan matt ko ah taali seeti leen kenn mënu ci dara moo tax kon taalibe yi dañ xam seen bopp ñëpp ci ñoom la ñuy mujj fu ci bëgg a falu seeti taalibe yi ku bañ a ñàkk sa poste bi seeti taalibe yi ku nekk ci jafe-jafe seeti taalibe yi moo tax buur ba bañ ko rombee ñaan ko ñam faalewul leen yàlla nattu leen ku toroxal taalibe yàlla toroxal la jaan mat ko mënuñ ca dara diplôme yu jàng nañ ko waaye mënuñoo mocc jaan boo xee boo am maîtrise waaye doo mën a mocc jaan ñu ne kon laaj leen ñu ñële ay taalibe lañ ñuy niru ñu xool leen ñu ñëw ñu ne ñun de suñ buur bi jaana ko matt ndax amu leen lu ngeen mën a dimbale pour mocc ko waaye nag ku ku ku ku ñeme la ñu ne Abdullah ibnu Omar ñu ne Omar ibnu Laas yi mu ne da may weexal bu ngeen ma weexalee ba pare ma door koo mocc ñaata la ngeen may weexalee mu xool la wër buur ba ay gàtt fa nekkoon bañ ko compté fanweer la fanweer yi xar ak i bëy mu ne bu ngeen ma joxee fanweeri xar yi ak bëy yi ma mocc ko mu wàcc léegi ñu ne ko tànk baa ngi mu tiim ko jàng fatiha tafli ca rek waaj a tisooli jaan ja wàcc waaye nag ñi mi koo lekk mu jiital gàtt ya dem ba ca yonantu ba naa tey ci téeréeb yàlla bi de noo laajee mu ne ko dafa am ku jaan matt ma jàng fatiha moccal ko ko jaan ja wàcc mu weexalee ma gàtt yi yépp yonantu bi ne ko ku la xamal ne fatiha day saafara loola waaye nag nang ci lekk waaye bul ma fàtte jox sama wal de sédd ma ci loolu la ko yonantu bi keroog kon foofa fatiha kon jarta weddi moo tax yenn boo ko waxee rek neel lan waaye am na ci yoo xam ne alquran lu ca nit jëfandikoo mën na ko xattan na lépp waaye yow mi koy def nag sellal rek waaye tey nag ndeysaan ñàkk a sell gi ñu dal waxuma la sax waaye jiit day fekk nii rek nga jàng faatiha te dara jiit jay gën a métti rek biiram di métti nga jàng faatiha mu gën a métti rek kon mbir ma nekkul ca la ñuy jàng mbir ma nekkul ca la ñuy bind ma nga nekk ca ka koy bind nu mbir ma mel-mel ak li mel-mel ci baax yow mi koy bind mbaa nga koy jàng na nga a mel boo ko melut doo ci mën a jariñu noonu la mel kon fatiha ma nga fam newoon waaye ñun ñoo newut fañ newoon bañ buñ newut fañ newoon nag fatiha du ñëw di ñu fekk ci mukk ñooy mujj rek nekk ci ay natt goo xam ne kenn ñu ko wax fatiha boo ko jëlee li ci jëkk mooy alhamdulillah al googu boroom xam yi dañ cee wutee ñii dañ ne al gi ali la ñenn ña ne al gi ali istigraqiya la ñenn ña ne al gi ali ahdiyu la ñu jàng naxu nag ñoo ko dégg jinsiya moo tax ñu ne jinsiya ñoo gën a ñoo gën a siiw fuqahaa yëpp lañ gëm moo tax ñuy wax ne xeeji sant yi mbaa mbooleem xaaji sant yi ñeent lañ lépp li aji sax la ñeel yàlla yàlla mu sant boppam ci alhamdulillahi lazi xalaqa samawati wal ard yàlla mu sant jaam ci ni'mal abdu innahu awaab jaam bu sant yàlla alhamdulillahi lazi hadana li hada jaam bu sant moromam jaamam man lam yashkuri naasa laa yashkuru laaha kooku xadisa ko andi ñeenti sant yëpp ci yàlla lay dellu def ko jinsiya nag moo gën a jaadu ñu ne ndax boo ko defee ya yàlla ni mu toll ku ko mën a labal ci sant gu gu yàlla ca moom kenn mënu ko waaye awliyaawu yëpp dañ ne nag al gi alio diw la mooy yàlla ba mu ñu bindee ba pare defal ñuy xéewal dafa ñun sant leen ma nag ñun ñi lott ci sant ko ku mën a sant yàlla dafa am ndax boo ko santoon sax sant gin ko sant da ko cee war a santaat loolu la ko Moussa kon foo koy sante yàlla jalal bi kon nag sant boppam ba pare ba mu santee boppam ne sant leen ma ni ma santee sama bopp moo tax mu ne kataba rabbukum ala nafsihi rahma moo tax ñu ne kon al googa yaa ngi toppandoor yàlla ca santam googa muy alhamdulillah boo ko jëlee tamit sant yàlla ñaari xaaj la dañuy tuddee sant yàlla guñ tënk sant yàlla guñ tinki hamdul muqayyad hamdul mutlaq sant goo sant am ci loo ko tënk sant goo sant am ci loo ko tënki Malik nee na guñ tënk gi moo gën Shafi ne guñ tënk gi moo gën Malik ne alquran ba alquran moo ci ne waaye guñ tënki amu ci sant goo wax lu tax nga ne nangam alhamdulilah nga ne lu tax nga ne rabbil alamin te yow ci alamin nga bokk alhamdulilah lu tax nga ne li hadana li hada te yow yaa ngi bokk ci minal muhtadina yi waaye sant guñ tënki amu ci alquran Shafi yu ne sant guñ tënk guñ tënki moo gën ñu ne ko lu tax mu ne yàlla mi la defal xéewal ba nga koy sant dafa mel ni bu la defal toon xéewal yow sant kon dañ koo war a sant même bu xéewal amut kon ñoom ñaar ñëpp wax nañ dëgg waaye dañoo bokk maqaama bu ñu waxee wut kii dafa waxee ci zahiru sharia kii waxee ci maanaam baatinu sharia waaye ñoom kon dafa ne bu la yàlla tey joxe lekk ba nga lekk tax nga ne alhamdulilah si atamani wa asbaani waaye dafa mel ni bu ñam xamutoon kon yow doo sant yàlla boo ne alhamdulilah si saqaani wa arwaani fa mel ni kon bu lekk boo naanutoon sant yàlla fa mel ni bu la joxee yëre nga sol ko ne alhamdulilah fi kasaa nii maanaam fa euh, mel ni kon bu la waddutoon jëru jëru koy sant loolu la saafi yu wax Malik ne ko daal li ma gis ci alquran laa jàpp ne moo gën alquran ba alquran jeex hamdul mu xayar rek moo ci am waaye gisuma ci hamdul mu laq kon ñoom ñaar ñi wax nañ dëgg kon bisimillahi ma wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur ba bay xiwalaa koon bépp mbindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira alhamdu melowu saxta rafet lillaahi aji sax la ñeel yàlla rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom mindeef yépp yàlla moomu arrahmaani mooy xéewalaakoon bépp mindeef ci àdduna rahimi mooy xéewal ku ko soob ci àllaaxira yàlla moomu maliki yow mi diini mooy borom bis penci boo maliki yow mi diin nag yàlla moomu iyaaka yow kott dong naabudu la ñuy jaamu wa iyaaka yow kott dong nastainu la ñuy dimbali ko ca jaamu ga yow yàlla moomu ihdina yàlla nga ñu gindi assiraata ca yoon wa mustaqim bu jub kocc wa wan la mu ne siraata la dina mooy yoonu gaaya nga xam ne ana am ta xéw a nga alayhim ci ñoom ci yonantu yaag anbiyaawu yaag mursaluuna yaag saalihuna ya waaye waxuma yoonu xayril maxduubi waxuma yoonu ñi nga xam ne dañ leen a mere alayhim ci ñoom wala daalina waxuma ñuy commi commi ñu réer ña mel ni nasaraan ya waxuma ñuñ mere ña mel ña kon ci loolu la waaye boo ko jëlee nga ne rabbi Seexu Tijaan mu ne rabbu mi ngi bàyyi ko ci rubbootu ji firi tundu mooy lu gën a kawe lépp yàlla mooy ki kawe lu dul moom féetee ko suuf rahmaani rahim jëlee ca bas ci basmala mu ne ñaari melo la ñaari ñaari melo yu sax dakk ci jëmmi yàlla ja xablewut ca mayewut ca rahmaani rahim ji nekk ci bopp saar wi ñaari melo la yum xable yàlla am na téeméeri yërmande juróom-ñeent fukk yaak juróom-ñeent yëpp da koo denc ba àllaaxira téeméereel ba moom la jël séddale ñu ko ci lay bàyyi di yërëmee doom doom di ci yërëm di yërëm ku ñàkk ak ku feebar bu yowmal xiyaamee yàlla jël ba mu ñu xabaloon boole koog yam dencoon muy téeméer mu yërëm ki ñu ñun ñëpp yàlla ñu ko yàlla defal boo ne maliki ñaari jàngin ñi jàng maliki ñi jàng maliki boo ne maliki moo ëpp doole ndax mooy buur boo ne maliki mooy ki moom kon borom xam-xam dañuy wax ne kullu malikin malik walaysa kullu malikin malik kuy buur ku ne moom nga waaye tekki ku ne ku moom ku ne buur nga ndax yow sax boo moomee la nga moom noona kala buuru atte mooy dox waaye yow nag li nga moom sa atte mënta dox ci ci ci ci ci maanaam kaw ki la moomu kon nag malik moo ëpp doole fuuf waaye nag maliki moo ko ëpp yool boo jàngee maliki fanweeri xaraf rek nga am fanweeri yool nga am ndax fan ñetti ñetti baat la te baat bu ñetti xaraf la baat bu nekk fukki yiw la muy fanweeri yiw boo jàngee maliki ñeenti ñeenti xaraf la kon am nga ñeen fukki yiw kon ku jàng maliki moo ëpp yool ki wax maliki waaye ki wax maliki nag moo wax li gën a ëpp doole ki wax maliki kon ñaar yëpp baax na bu ne iyaaka budu yàlla na nañ ko jaamu jaamu yàlla mooy fukk fukki yëf rek mooy jaamu yàlla yëpp fukk la julli ci la bokk joxe asaka aj màkka xoor weeru koor jàng alquran sikkar yi tudd yàlla lu bari fàggu lu lew di ko dundee jëflanteeg nit ñi jëflante bu rafet sàmm tamit ak kàndoo ak lépp loo xamee ne nii ci wàllu jëflante la boo ko toppee yëpp fukk rek la lay jox ni ñuy jaamoo yàlla yëpp fukk rek la iyaaka nasta'in wa iyaaka nasta'in dimbali ko yàlla ñaar la dimbali ko yàlla ci looy xëcc ak dimbali ko yàlla ci looy dàq li ngay dàq kenn mënu la koo dimbale ba dàq ko ku dul yàlla li ngay xëcc xëccal la ko ku dul yàlla kon moo ñu mën a dimbale ba mosal ñu moo ñu mën a dimbale ba mosal ñu njëkkee na nag jaamu yàlla ci dimbali ko ñu ne ah, ah kay xanaa kay dañoo war a dimbali ko door a a jaamu yàlla ñu ne déedéet jaamu yàlla bu ko defee def nañ li ñu war ku nekk ci li la war nag yàlla dimbalal ci li la war su boobaa comme yaa ko yaa jaamu nekk nga ci li la war su boobaa ne boo ne iyaaka na'budu rek a a taxaw waaye boo nekku ci li war kay yàlla mënu laa dimbale ci li nga xam ne moo la wër su ko defee mu ne an'amta alayhim nag yonantu yaag siddiquuna yaag saalihuuna yëpp dugg nañ xayril maxduubi kooku mooy yahudiya wala daalina kooku mooy nasaraan yi nga xam ne dañu nekk ci lañ nekk ba yàlla wax loolu kon ma jaaraat ci rek na ngi tëj jotaay bi mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaa bépp mindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira alhamdu melowu sax ta rafet lillaahi aji sax la ñeel yàlla rabbil alamina yàlla mi borom mindéef yi mindéefam yi lu bari la yàlla xam na lu hëpp téeméeri junne aalam juróom benn téeméer yëpp dañu géej gi ñeenti téeméer yëpp dëkk ci géej gi ñenn ña ne juróom-ñetti téeméer yi alam am ñeenti téeméer yi ci géej ñenn ña maanaam ci géej ci jéer yi waaye ànd ak loolu lépp jamoo xilla la ndax mbindeefam yi li ñuy bëri bëri boo ko comparé màgg yàlla ga lu tuuti lañ dañ koo xéegal tamit ci jamoo musakkar saalim miy rafaaxee waaw lu muy defati yaa arrahmaani yàlla muy xéewal bépp mbindeef ci àdduna rahimi di xéewal koo soob ci àllaaxira maliki yow mi diini mooy buurab bi sa fay waaye tekkiwul ne foofa rek la fa fii tamit moo fiy buur waaye ñi fi buur ak néew dafa leen a xabal takki ndeer boo ëllëgee mu nangu takki ndeer nekk ci moom mu nekk di buur ne li ma nil mulkul yawma ñëpp nopp mu ne al mulkul yawma lillahi waahidil qahaar iyaaka yow kott dong naabudu la ñuy jaamu wa iyaaka yow kott dong nastain la ñu dimandikoo ca jaamu ga kon nag ihdina yàlla nga ñu gindi siraata ca yoonu mustaqim wu jub kocc wa ñu ne mooy alquran ñi ne mooy sunna ñi ne mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam siraata la si ne mooy yoonu gaay nga xam ne ana am ta xéwe nga alayhim ci ñoom xayril maxduubi juhu ñu ñu mere ña alayhim ci ñoom muy yahud ya wala daalin juhu ñu rée ñu commi comm ña kom nasaraan ya kon lii mooy fatiha ci tënk li ñu ci xamal liñ ci xam yàlla nañu yàlla may kartañ guñ ko mën a jëfee ci yàlla wàccee barkeeb fatiha mii ci suñ kaw wàccee ko ci seen kaw wàccee ko ci kër gi di wal fajiri jiital ci borom kër gi ñi may occasion bi nga xam ne moom lañ doon addoo yàlla bool defal tawfiq ñëpp yàlla bool defal taysir ñëpp bu ñu fi yàlla indiwaatee suba ci kartanam ñu dugg ak yéen nag ci suratu baqara mi nga xam ne moo njëkk a wàcc ci sura ca madinatul munawara te mooy saar bi gën a gudd tamit ci alkuraan ñu ngi sant suñu waa plateau bi nekk fi tey tamit rafetal ko di si jiital suñu xarit si Ahmed Tidiane Thiam bàyyi ko ba Amérique moom sax ñun ñii nekk ci daara ji di ko jiite sax mooy suñ mooy suñ sëriñ daara mooy suñ jiital daara ji at mu jot mu dagg bi ñëw fekk si tafsir bi kon amuñ fayam yàlla na ko yàlla fay yiw bu baax a baax nuyu alaaji Keeba Njaay nuyu sëriñ Abdul Ahad juuf dama koy wax sax mu ñëw toog fii firi ndax xam na firiyam waaye su ma ne ko kaay toog fii rek moom mu joxe ngànta imaam Maguette law borom xam-xam la ñu ngi koy sant alaaji Keeba Njaay bàyyee ko ba Njaayeen sant ak maa ngi ko fi gis sëriñ Abdul Ahad tamit tabaarakallaahu gis naa ko fi mu alaaji Moussa Thiam sëriñ Abdul Aziz ñoom ñëpp dagg nañ seen hitte ñëw fekk si firi mi yàlla na yàlla defal leen tawfiix defal leen taysiir wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. iqra bismi rabbika alladi xalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Read in the name of thy Lord who created. xalaqal insaana min alaq. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Created man from a clot. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis, ton Seigneur est le très noble. Read, and thy Lord is the most bounteous. Qui a enseigné par la plume le calame. Who teacheth by the pen. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Teacheth man that which he knew not.